monsieur le ministre Moussa Diop nuyu nañ ñoo ngi leen di fay di leen sant di leen euh, gërëm euh, di wax ne tey dañ ñëwoon fii tey ci màggalug Touba gi en tant que murit di taalibe dañoo di màggal si bis bi tey di ñaanal euh, Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi te may ko wér-gu-yaram tey nag ñu ñëwoon fii ci Touba. seet si waale suñu xarit suñu doomu ndey di Lat Diop nga xam ne murit bu wóor la eh, di feete bis bi ñëw tey ñu koy jaar jaar fi ziare si waale ko seet ko doon ci ci ziare yi nga xam ne eh, moom lañ doon def donc daal tey loolu la def si ko Touba. sa digganteeg Lat Diop sànq damay sànn benn vidéo sur internet muy témoigne ci yow ba jooy da ngeen am relation bu particulier boo xam si dans le domaine de la politique. waaw lat sama lat sama xarit la xam nga ànd boo gis rek dafa war a dafa war a dëggu waaw moom yàlla moo ñu boole ñu mel na ñu bokk ndey ak baay waaw lat euh, mu taxaw ko taxawaay ba rafet aussi rafetal ko yàlla boole ñu muy nit ku muy nit ku baax di nit ku bëgg président Macky Sall ah. yàlla boole ñu ñu xamante ci politique bi xamante ci ci président Macky Sall ndax ñun boo ñu gisee ñuy dox rek jàppal ne lépp luy jëm lu mbiri président Macky Sall kanam la jëmale euh, réew mi kanam ci fofu lañ xamanté ma gis ne ku deggul la soldat président Macky Sall la soldat Sénégal la euh, ci la ko téye Yalla bo lañu ba ba légui ñuy and ñun day xam nga ñun ñun bokkum Sénégal yépp la fo laar rek am nañ fay ay ay mbokk waaw nak talibé mouride lan wóor peng mais fo laal diiné go laal euh, am nañ fay mbokk am nañ dafa jam ndax Sénégal mom jam rek fa xaj waaw. ministre mo ko doon daaj lu ko seigne touba defal. kanti loolu la sëriñ Tuubaa defal. Eh, sëriñ Tuubaa defal na ma lépp <laughs> ñun sëriñ Tuubaa lañ yaakaar tey ak ëllëg <laughs> mooy sunu sëriñ donc loolu rek doy na sëkk defal nañ lépp. président de la république yëkkati di barki démb Ndiaye ay teranga jox Abdoulaye Daouda Diallo muy ay titre foncier yu mu jagleel xel général de président moom ku ko xam xam ne taalibe murit bu wóor la sëñ Mountakha. papam la te yaakaar naa ne jéego yu dox fi ci Touba ñepp tek ñu seen beut serigne bi ci bopam moko santal bopam ne nañ ko ko santal ñu koy sant bu baax ci taxaw bi mu ko taxawal donc lool nak yaakaar naa ne mom kon mourid nak mom ndigal rek <laughs> jërëjëf monsieur le <laughs> ñu ngi sant